mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp ci turu Touba ca kanam di siyaare kilifa yëpp waaye tamit di jël nuyoo beeg siyaare bi yëpp di ko teg loxo sunu jëriñ sunu kilifa sëriñ Habibullah di ko ñaanal sunu borom yokk kasam ak gërëm. waaye tamit di siyaar bu baax di siyaar bu baax alxalifa al aam li taifatil muridiya di cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal di ko ndokkeel ci taxawaayam rafet yi yàlla yàlla yàlla ne yàlla gën a dëggal taxawaayam euh, may ko kàttan ba mu liggéey lu kawe kawe kawe njortam ànd ko murid yëpp nag di masawu coono tamit mbooleem jullit Sénégal yëpp mbooleem sax doomu aadama yëpp laay wax ci Sénégal rawatina na tamit ci àdduna bi yëpp na ci fan yi ñu toll muy fan yu metti fan yu tiitlu fan yu jaxasoo ndax mbas mi nga xam ne dugg na fi mbokk yi tey ñu war a ñëw tey ci waxtaane waxtaan wu am solo woo xam ne jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax te mooy takaaful ijtimaa'i ahamiyatuhu wa asaaruhu Tuubaa ca kanam na musa jën mu jamono bii ñu toll rawatina sax jamono bu nekk waaye jàppante ak dimbalante gi war a am ci suñu biir ñu taalibe yi rawatina ñu jullit yi loolu am solo gi am solo ak Tuubaa ca kanam taxawaay bi mu ci am loolu ma la war a waxtaane ñu tënku ne ci juróomi tomb tomb njëkk bi mooy daan soññee ci benn benn aaya ak i xadis yoo xam ne wax na ci wàllu dimbalante ñaareel tomb bi danañuy wax yan jumtuwaay la mën a teg pour dimbalante googu mën a nekk mën a lu dëgg mën a am njariñ waaye tamit ñetteel ñetteel bi daan waxtaanee ci effet wala njariñ wala taasir bi nga xamante ne si dimbalante ci kanam mën na ko def suñu biir rawatina Tuubaa ci kanam taxawaay ba rafet bi nga xam ne moom la ci am ñu jeexale ko nag. ay ndénkaane ak bàyyiloo xel ñu bàyyiloo jullit yi ci fan yu metti yi ñu toll mbokk yi dimbalante moom ndigal la loo xamante ne si mën naa xam ne farata la suñ borom moo ko santaane ci ay aay yu bëree bëree bëree bëri euh, néew na nga dugg aw saar ba mu jeex te suñ borom waxu leen fa waxu fa jullit yi nii na dimbalante na ngeen dundale ci yoonu yàlla wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi suñ borom mi ngi nii sant ñu dimbalante ci mbaax ak lépp loo xamante ni day jëmale nit ki ci ragal yàlla waaye tamit bu ñu sa mukk safaan ba safaan ba mooy lan mooy dimbalante ci lépp lu waral bàkkaar wala lépp loo xamante ni day waral ak noonoo suñu borom na ngeen ragal yàlla. benn aayaa ngi nii boo xam ni tënk na lu baree baree bari ci li ñu war a waxtaanee. mi laysa al birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wa kitab wa nabiyina wa atal mala ala hubbi sawil qurbi aay bi laysa al birru suñu borom def ci wax ni yéen yëpp na ngeen xam ni mbaax moom nekkul di sëgg ak di julli yu bari mbaax du koor yu bari mbaax di jublu penko ko sëgg sëgg déedéet waaye nag baax dëgg-dëgg nag mooy nit ki ginnaaw bu mu gëmee yàlla gëm gu wér gëm yomal xiyaam gëm ni yàlla am na ay malaaka gëm ni yàlla wàcc na ay téere gëm ni yàlla am na ay yonente loolu moom ci wàllu gëm la ginaaw gëm nag ca toppaat mooy wa aatal maa ala xubbi nit ki na jël ci alalam jëm gën a bëgg di ko joxe li a bëgg nag bu ñu ko joxee maanaam mu wax nekk comme ni ñu ko xamee jamono jii sarax yoo xam ne da ngay jël ko di ko sarax wala ni boo ko joxee ni kii du ko amal kon dimbalante bi li ci ëpp solo mooy li jox nit ki na doon loo xam ni forcément day am njëriñ ci moom daf ko jëriñ lool mag day wax ni li ngay joxe fa mu jógee boo fa gaañu rek fa mu jëm dafa jariñ kon fa mu jógee fa mu dafa ab pax moo xam ne ne leer ni nangam jógee na fii loolu tamit suñu borom wàññi nii booy dimbali na nga tàmbale ci sawil xurbaa ñi la gën a jige ma bu doon mukk sàmm àllar waa nag na nga tàmbale sa mbokki bopp ba ci noppee nga ci wata yataama muy miski muy muy jirim yi boo noppee dem ci way ñàkk yi boo noppee ci doxandéem yi boo noppee nag dem ci laajkat yi ba ci sax boroom bor yi ba ci sax jaam ba ba jaam daam yooyu yëpp ko wax leeralal ñu maanaam ñen leen di war a dimbali ba noppi door nag wa aqaama salaa loolu indi na li ngi taxawal julli xoole kon ginnaaw ngëm yàlla rek lam fa teg dafa leeral ni ñu war a dimbalantee ak ñan la ñu war a dimbali booy dimbalee boo noppee nag nga door nag taxawal julli nag kon dafa mel ni ko ndekee nit ki bu taxawalee julli sonn ca lool te dimbaliwul ay mbokkam dafa mel ni la muy def du ko jëriñ lu bari ndax ñaar lañu xam te ni maanaam benn mën cee dem bàyyi moroom ma faaw rek ngay julli waaye tamit faw tamit li suñu borom wax mooy lii mu la dénk na ko bokk ak say mbokki jullit na nga ko bokk ak say mbokki jullit yi mbokk yi euh, innamal mu'minuna ixwa bu ko yàlla waxee ñu yëpp ay mbokk lañu na ngeen defar seen diggante defare gi mënta weesu jàppalante mënta weesu dimbalante kon force la kon jàppalante ak dimbalante ci biiru société bi ci suñ biir ñu jullit yi nan lay mën a nekke yéen tamit mën ko jàngal ñu xam dëgg-dëgg importance bi benn xadis ak ni salaasam nee na misaalum jullit yi ci seen soppante ak seen yërëmante ak seen ñeewante dañoo war a mel ni benn yaram benn yaram ni muy mel nee na bu fekkente ni benn cër jàmbante ci rek cër yëpp ay gaare maanaam bu fekkente ni da ngaa xëy di metti doo liggéey liggéeyi pourtant mën ngaa dem liggéey de waaye doo xëy liggéey ndax lan yaram yëpp ay yëg tàngoor wi ndax dañuy taa yaram yëpp ay metti day mel ni tey da di wàll dégg nga bu fekkente sa bopp mooy metti doo liggéey bu fekkente ne sa biir mooy metti doo liggéey noonu doomu moo noonu cër yi mel nag doomu aadama yi noonu la war a may ñun ñëpp dañoo war a yëgandoo li nga xamante ni mooy xew ci sunu mbokk jullit ku ci am jaam ñun ñëpp yëgandoo ko jàpp te waaye tamit ku ci am leneen it lu metti it ñun ñëpp ñu yëgandoo ko ba mu yëg ni maanaam lii moom dong nekk na ci ak mbokk jullitam kon loolu moom la jàngale foofu yonent sallallahu alayhi wax ci beneen xadis boo xam ne buñ ko defee woon rek kon lii lépp naa bañ am mooy ni kenn ci yéen ak ngëm yàllaam du mat lu may lu mu bëggal boppam def koo bëggal mbokkum jullitam waaye bu fekkente ni maanaam loolof di wax sama boppam la gën a du bañ naa la loolu moom suñu du waxee wolof la waxee ceddo la waaw nit ki maanaam sa mbokk moo la war a gën a sax sa bopp wa yusiruna ala anfusihim wala kaana bihim qasaasa kon loolu mooy lu wér loo xam ne maanaam julli war nañ koy bàyyi xel mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax fi benn xadis bu am solo mu ni julit dëgg-dëgg mooy koo xamante ne saa bu xëyee day xëy ci aajo julinu ci ci aajo yi mbokk mbokkum jullitam te mooy képp koo xamante ni yaa ngi ci sa aajo julit yaa ngi ciy dox di ci wax nee na yàlla dina taxaw say aajo képp ku taxaw ci soxla doomu aadama yi yàlla taxaw sa si soxla képp koo xamante ne si yaa ngi tegli nit ay coona yéen tegli ay njàqare yàlla moo lay tegil say coono moo lay tegil say njàqare moo wax ni képp koo xam ne yaa ngi suturaal jullit yàlla dana la suturaal ak yawmal qiyaam bis ba nga xamante ni moom dong moo am sutura mu waxaat faneen ni eh, yàlla mi ngi ci ndimbalu jaam bi mi ngi dimbali jaam bi fii jaam bi mi ngi dimbali mbokkam kon lekk ku bëgg yàlla dimbali la na ngay dimbali sa mbokk jullit yi na ngay dimbali sa mbokk jullit yi alxuraan wax ñu ci beneen aaya boo xam ne moom tamit leer na ci lu bari mooy masalu la seen yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sunba meetu habba wallaahu yudaa'ifu liman yasaa mbokk yi dañ bàyyi xel aaya bi bu baax suñu borom nee na misaalum gaa ñi nga xam ne ñi ngi jël seen alal di ko dépense ci yàlla nee na mi ngi mel ni ku jël sa dugub maanaam suul ko maanaam ji ko benn pepp nga ji ko mu sax juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub yooyu benn bi ci nekk am juróom-ñaar am téeméeri pepp muy juróom-ñaar téeméer mu ne benn pepp nga sax woon maanaam nga ji woon nga am ci juróom-ñaar téeméer masal li gën a gaaw mooy fii ñu toll nii ci euh, démb rek wala barki démb Serigne Mountakha digle na ñu dem ruuji ruuj li ci topp mooy faru faru mooy ji dugub ji moo ne bu ñuy jiyee gone ndaw ngay jox lu mat juróomi kilo wala ñetti kilo sax léeg-léeg juróomi kilo yooyu ci dugub bu demee bu ko jiwee bu demee ba ci kanam ba nawet bi wàcci tool ba man nga caa génne lu mat 5 tonnes wala 10 tonnes te pourtant juróomi kilo la woon de nee na lu baax noonu la mel. boo joxee benn ma defal ko ba muy juróom-ñaar téeméer boo defee fukk ma defal ko ba muy juróom-ñaar téeméeri junni loolu moom sëñ bi boobu boobu bënis suñu borom dong moo ko am te nee na nee na sax li may fulale di ko di ko multiplier man maa xam fan lay yem man maa xam fan lay yem kon nag loolu muy loo xam lu jar a bàyyi xel la waaye nag ñun danañu dimbalee ci suñu biir bu baax a baax a baax waaye léeg-léegi nag dana am loo xam ni dana yàq suñu dimbalante gi mooy dimbalante gi ba pare maanaam toppaat rek ci ay kaddu yoo xam ni kàddu yooya daf koy tax sa mu xaw ko suur waaw maanaam di ko ñax su du man maa jox nangam maa la may nangam maa la lii loolu alxuraan nee na nga wax wax ju rafet sax moo gën nga wax wax ju rafet moo gën wala nga jéglu ko moo gën moo tax mu ni allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yajiduna ma anfaqu mannan wala azan lahum ajrun inda rabbihim kon kii def lu baax daf koy def te bu fi te feeñ am na benn xarit bi wax ni sarax bi gën mooy sarax bi nga xamante ne bi ko bi joxe càmmoñ bi yëgu ko waaye bala ngaa saraxe woo ñëpp ñu teew ñu yëg ko loolu moom amul njëriñ ñaar ba tamit nga di ko def naan maa wax nangam wala maa def nangam loolu tamit mbokk yi ah, suñu borom gërëmu ko kon nañ koy bàyyi xel baax a baax mbokk yi lii nii yonent bi sallallahu koo jàngale woon ci saxaaba yi waaye ñoom tamit ñu mën ko baax xam ko baax sallallahu alayhi wasallam am na benn bis Euh, mu rey gàtt ak lim doon néew néew doole moom salaa salaam mu maanaam maanaam du woon ku bari alal lim doon néew néew doole bi mu reyee gàtt bi nit ñi ñëw mu di leen ci jox di leen ci jox di leen ci jox ba mu des benn tànkanam bi suñu yaay Aysa ni ko ah sallallahu alayhi wa sallam yow joxe nga lépp ba mu des tànkanam bi mu ni déedéet ñu dem ñu ko déedéet lépp fi des maanaam tànk kanam bi ma joxewu rek moo dem moo li Sëñ Tuubaa di wax naan lépp loo xam ne bëggoo ko ñàkk de ko joxe nit ki lu bëgg te ñàkk na ko joxe nit ki lu mu bëgg a bari na ko joxe ndax yàlla moom lépp loo joxe rek mu delloo ko wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu saa boo joxe yàlla moo la fay wutalaa leneen kon ndeke li nga joxe maanaam moom nga am waaye li nga téye moom moomoo ko li nga téye moomoo ko loolu bi sa xam di jàngale fii xoola kenn ngi nii si gaa yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Usmaan ibn ak keneen ku ñuy wax Abdurahmaan ibn ñooñu de ay jàmbaar la ñu woon yoo xamante ne si déggoo nañ bu baax a baax njàngale bi yonte bi Ousmane Ibn Affan keroog bi ñuy waajal xare xare tëbbuuk tëbbuuk la woon muy xare bu tàngoon bu metti bu sori bu laaj alal ju bëree bëree bëri yonent bi fëgg na fëgg fëgg fëgg laajte laajte nit ñi li ñu indi amul solo ndax boobu dafa teewoon rek mu jamono bi mu mel nii suñ jamono bii boobu jamono neexul maanaam ci Madina li ñu indi lépp maanaam attanul xare bi Yerusalem yaa di yuux ca kaw te ni ana kan mooy waajal xare bi yàlla jéggal ko ana kan mooy waajal xare bi jéggal ko bi ko waxee rek Ousmane daa daw dem këram Ousmane ba mu demee dem këram nan la def nee na daa daal di dem indi lu ma juróom-ñeenti téeméer ak ñeen fukk ci ay gëléem daa di indiwaat juróom-benn fukk ci ay fas xanaa muy junni yemu ca mu daa dem jël alalam jooyu yépp ëmb ko ci daraam maanaam ci ci daraa ju mu yoroon muy alal ju bëree bëree bëree bëree bëri wax nañ ni matoon na euh, ñeent fukki junni wala boog ëpp na sax ngay wax nee na bi mu dikkee bi mu xappee yoonte bi rek yonent bi dafa mel ni ko afale ci niñ ko mën a waxee de tiit ndax li mu indi woon rek junni ci ay waajukaay ci diggante fas ak gëléem mu indi waat xaalis ba benn ëpp na téeméeri junni ci booba jamono mu doon léegi mu nga ne ay milliards la ma daf mel ni ku tiit ba dafa jël kaala gi taf ko ci gémmañ gi daal di jël loxo bi loxo bu tedd ba di ko def ci alal ji ci alal ji di wëlbati naan maa darra Ousmane badal maa faala badal yow mi maa darra Ousmane maa faala badal yow mi Ousmane bis ni ki tey mënatoo def loolu yóbbu sawara war a tey mbaa yàlla ne la loo neex defal lu ko ko may joxe gum joxe dëgg dëgg dëgg dëgg ci yoonu yàlla waaye Ousmane moom tamit loolu mu def nga xam ne maanaam def na ko ba suñu borom mbaa ko ba ko yàlla da koo def ab soññi ab soññ bu rëy ko def waaye tamit am na keneen ku ne si wetam ku ñëw Abdurahman ibn Awf ci jàmbaar yonent bi la bokkoon ci jàmbaar saxaaba yi la bokkoon moom day lan la def moom dafa jël benn toolam ni tool bi may naa ko waa kër yonent bi sunu yaay yi muy soxna yonent bi lu ci génn ñoom ñoo ko moom moom it li Ousmane def def na ko ndax ci xare bi may wax nii waajal na lu ma juróom lu ma juróom bi ñeen fukk ñeen fukki gëléem jox na ko yonent bi sallallahu alayhi ñi ni ñi ni ñeen ñeenti téeméer ñaanam ñeenti téeméeri gëléem jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn bis goreel na fanweeri jaam ci jamono boobu moom Omar moom moom Abdourahman Ibn Awf mooy kenn koo xamante ne si ci benn bis tamit jox na waa kër yonent bi sallallahu ñeen fukki junni ci diinaar ci seen xaalis booba kon kooku tamit jàmbaar la woon Babacar Sadiq ak Ousmane wala Babacar Sadiq ku ne xam nag ak Omar Ibn Khattab benn bi sallallahu bi yonent bi laaja waajalee laaj leen ni leen maanaam lu waaye am na ko indi Omar daal ni tay moom danaa fexe fexe fexe ba maa daan maa daan Babacar Babacar du ma daan mukk waaw tey moom maa koy daan daa di xaaj alalam nam tolloo li muy bari bari bari mu xaaj ko indi génn wàll gi ni sallallahu alayhi wa sallam tey moom yonent bi ma daan tey moom Babacar du ma daan tey maa koy daan mu ni ko ah daa mel ni Babacar diis na la mu ni ko ah mu ko daa di woo Babacar ni mu ni ko indi naa sama alal lépp lépp laa indi mun ni ko loo fa bàyyi mu ni ko bàyyi naa fa yàlla ak yonent bi Omar daal ne ah man ak fu mu koy jaar rek xoolal kii rek ni mu mel xoolal ñii ñoo déggoon dëgg-dëgg li alxuraan di wax ñii ñoo déggoon dëgg-dëgg euh, euh, yonent salaa salaam li mu jàngale woon ci ci ci xarit bi ma wax léegi. waaye nag ñii ni ñu meloon ak lii ñu amoon ñu ah, est-ce que ñun amuñu ñu mel noonu ñun am na ñu mel noonu am nañ ñoo xamante ni ay Babacar am nañ ay Ousmane am nañ ay euh, Omar am nañ ay Abdurahman Ibn Awf suñu jamono bi am nañ ko. kenn ku nekk la mën a jël ci sa alal jënde ko aljana lu yomb lu bar la te du la wàññi dara mbokk yi jànge loolu dañu war a bàyyi xel bu baax a baax a baax am nañ ko fii sur Sénégal gi xoola kenn ngi nii koo xamante ne si muy maam na Ibrahima Faati maam na Ibrahima maam Thierno te Daaru Musti nga xam ne naanaam moom it tudde borom Daaru Muxti kër joxekat bi moom dafa mënoon a joxe mën a joxe ba adiyam Sëriñ Tuuba maanaam ñi daan dem dañ daan tase ñuy ñëw nga xamante ne waxtu bu nekk yoon day mokk rumbu ci ñuy yóbbu ay addiya waaye loolu yëmu a am na at boo xamante ni booba amul leen indépendance avant indépendance la woon tubaab bi moo fi nekkoon senegal maanaam bekkooroon bu am ñu ab dund tubaab bi dafa ñëw si maam Thierno Ibra Faati ni ko boo jàpp du baax nan la def dafa jël biste Sénégal jamono boobu mu jox leen ko loolu kenn nit moo ko def nga xam ne biste Sénégal yëpp la leen jox. keneen a nga nii maam Cheikh Anta nag foo koy bàyyi muy muy kenn ko xam ni li mu def ci yoonu murit kenn mënu ko wax. nga xam ne maanaam sëñ Moussa dafa ni lu nekk lu baax lu ne moo ko njëkk am ci yoonu murit maam nu euh, maam Cheikh Anta moomu nga xam da nga naan sëñ Tuubaa da koo créé woon rek pour maanaam muy faj maanaam buumi gàcce yi. daf koo créé woon rek muy faj lépp loo xam ne yoon soxla na ko ci wàllu alal wàllu xaalis koo kenn la ci waaye na xanaa doo ma ne sama dumbe nag sama dumbe borom xabaan ak borom déndey moom nga xam ne waxuma ak tërbiyaam ñi ne dem na fanweeri at ñi ne ma musta wàcc musta wàcc xataa ba bi ko sëñ Tuubaa wàccee sax bi ko sëñ Tuubaa wàccee sax dafa dañuy rus naa mukk sëñ bi gis ma naan ana waa kër ga dama dem te toole koy dëkk fa di bay di ko jël rek waaye du ma wàcc mukk loolu moo ko yóbbu woon mu dem déndey dëkk déndey ndax bëggul mukk sëñ Tuubaa ni ko ana waa kër ga li bëgg a dëkk ma ana waa tool ya noonu la def noonu la def ba fa la wàcce kooku muy sëñ Mandumbe waaye am na keneen Fay Baay Isa Jeen ma tamit nag mi nga xamante ne si li ma wax ci maam Cerno wax Cheikh Issa Diène euh, euh, euh, wax ko ci sëñ Madoumbe moom moo wala bal ci mbooleem ñi nga xamante ne Serigne Touba yaroon na leen ci joxe waaye tamit kenn ngi nii ko xamante ne moom bu ñu waxee ñëpp xam ko muy Babul Mouridine maam Cheikh ma Fall moom it ban taxawaay la amoon ci joxe moom dafa demoon ba wax nii sax yéen dee leen féete woo wax rek man may féete woo jëf waaw loolu moom lu ñu jëru sara ko ne xam na ko kon ñun ñooñu ñooy suñu roykaay ah ñi bi amoon Serigne am nañu mel noonu ñun tamit buñ bëggee ñu nu roy ci joxe ci def lu baax am nañ ko bëri wata duñ sonn xatta ba suñ jamono ji ñu wax jamono sëñ Saaliw sëñ Abdou Lahat dégg nga sëñ Fàllu kenn ku ci nekk bi la nga tolloo def nga ca loo xam te ni yéem nga jamono waaw ndax ci yoonu murid rek lañuy la ñuy gisee ay xalifa général yoo xam ne dañuy dimbali état bi ci xaalis ñoom ñëpp ñoo ko def waaw sëñ Saaliw def na ko barki démb boo ñaar sëñ Muntaxa def na ko ñëpp fekk ko ñoo xam ko du lu yàgg waaye tamit Serigne Saliou ci joxe Serigne Saliou ci boppam nga xam ne ñun dañoo dund ak moom ci lu bëree bëree bëree bëri fekk fi lu bëree bëree bëri santaan yii muy fëri fëri dëkk bi yi ci Touba wax dëgg yàlla euh, duñ ko fàtte mukk danaan def bu noo jotee bu bu ñu musaan fii noor bi xaw a sori muy sëpp ay camion te gudd leen daan jóg du topp topp sancaan yi di wër topp sancaan yi ku ne àgg rek fa saako ceeb saako dugub ak leneen ak leneen mbokk mi may nettali ni dafa am benn bis moom nee na ca ñu dem euh, di joxe ndimbal yooyu yi sëñ Saaliw yi bi demee ba ci benn kër fekk la ñu tëdd ay xaaju ay minu yooyu xaaju guddi nee na ñu fëgg waa ji bi ñu fëggee mu jóg ni lan la woon mun le ñu ni ko sëñ Saaliw de moo fi moo la jox lii euh, saako ceeb bi ak saako dugub bi nee dafa dafaa daara daw bàyyi fa daw bàyyi leen fa ñu dékku mu fëgg soxna si jugal jugal jugal jugal soxna ko lan la mu ko jógal sëñ Saaliw ñëw na waaw dugal taal reer sëñ Saliou ñëw na ndekkee kooku ñoom ndekkee demoon na ba tëdd sax te réeruñu ndeysaan mu ko dugal taal reer sëñ Saliou ñëw na bi mu ñëwaatee ñoom dafa dafa ñu ànd ki jooyam ne sëñ Saliou moo def lii sëñ Saliou moo def lii nga xam ne maanaam dafa ànd ak àll kooku nee na bi nga nettali sëñ Saliou sëñ Saliou doon jooy waaw ndekkee dëkk dëkk bi am nañu ñàkki noonu dëkk bi am nañu sonne noonu kon mbokk yi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax baax waaye tamit nañ bàyyi xel ni bala ñuy jàngale loolu dëgg-dëgg am na loo xam ne nag moo ko jiitu mooy lan mooy li nga joxe na nga joxe li farata pare farata ji mooy asaka ji farata ji mooy asaka ji na jiitu bu asaka jiitoo rek ñu génne ko joxe ko euh, nañ ko war a joxe te nañ ko war a joxe fii nag Touba ak sax feneen fu Touba ba léegi damay gëm ni joxe wuñu asaka ndax jamono xulafaa rashidin jamono Omar ibn Abdul Aziz euh, nañ daan joxe asaka suñ ko doon joxe asaka kon maanaam benn doomu aadama dootu ñàkk ci kon dool dafay jeex ak ñàkk dafay jeex. Ibn Abdul Aziz ñaari at la def ci xilaafa gi asaka jim daan joxe mujj na boo koy jëlee di ko joxe daam ko ko jox ñëpp am ndax lan dañ ko daan jox ñin ko war a jox waaye dañ ko jox asa du doon asaka yaama neex asaka yaama neex wala kii sama sëriñ la ñun na fii da ngay gis ku jël asaka muy ay million mu dem jox ko sëriñam sëriñ sañ bàyyi xëy na ab sëriñ du lekk asaka ab ab sëriñ du lekk du lekk asaka ab sëriñ du lekk sarax ab sëriñ aadee lay jël kon sëriñ bi yow sëriñ bi bu ñu la joxee bu la joxee asaka ah soo ko delloowu tamit jëlal jox ko ña nga xam ni ñoo ko aajo woo ñoo ko war a jël waaye ab sëriñ moom wutaleeg sarax wutaleeg asaka te suñ jamono si nag daa mel ni saa bu ab sarax génnee wala asaka génn daa mel ni ñoo ci gën a sonal nit ñi ñu ci ëppale te loolu tamit jar na jàngtaat baax a baax a baax kon li ñuy génne ci hadiya yi di ko génn ci tabaski yi di ko génn ci wax wala wasiye wala lu mën a doon loolu ay ndimbal la yoo xamante ni nañu góorgóorlu baax a baax di ko jox ñi ko moom muy àgg fa mu war a àgg muy àgg fa mu jëm waaye bu dee loo xamante ni lu ñëw rek ñañ ko dénk ñu ngar daajoo ko daa ci tedd lii am mooy am rek mooy ñàkk gi day gën di bari te nag mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax nii lekk benn dërëm boo moomul xajul bàkkaar xajul bàmmeel benn dërëm boo moomul xajul bàmmeel rawatina nag ay saaku ceeb ñu jox la ko di la séddaloo nga yaakaar ni yaa tey kii am nga kaan wala gañe nga wala déedéet na la leer bis boo duggee bàmmeel saaku ceeb yooyu yëpp ak dugub jooju yëpp ak alal jooju lu muy bari bari bari bari dañ koy def am mat di la ko xambe yow loolu yam lekkoon alal jàmbur yi euh, mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax a baax ni Serigne Touba li mu digg ci saraxe rëy na lool li mu ngay saraxe digle ko ci joxe ci yoonu yàlla lu rëy rëy rëy lu jar a bàyyi xel la loo xamante ne si euh, jullit yi war nañ ci góorgóorlu moom nag daf koo déggoon moom sëñ Tuubaa dafa déggoon lu baax lan mooy joxe ci yoonu yàlla dafa déggoon baax lan mooy dimbalante ba tax na ba mu dikkee dafa daal di samp li wax xidma xidma mooy lan mooy lépp looy defal jullit bi rek ci lu baax xidma la moo tax mu ni wa qiila in xadara yawmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawa wal xumma naadaa munaadin ayna ahlu xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumaruna li jaay musriin ëllëg yowmal qiyaam nee na bu ñu ñëpp ñëwee taxaw coono beeg tàngoor weeg jafe-jafe yëpp jàpp doomu aadama yi nee na day am ku woote yàlla day woote benn malaaka mu yuxu ni eh, ayna ahlu xidma ana ñu daan xidma jullit yi ana ñu daan dimbali jullit yi ana ñu daan jullit yi ñoom ñu ñu ngi ni ñu leen gaaw ñu leen gaaw leen gaaw leen gaaw ba ñëpp ñëw mu leen dem leen ngeen dugg àjjana gaaw yéen moom coono beeg jafe-jafe seen yoon nekku ci sëñ Tuubaa waxaat faneen ni benn tib boo xamante ni patt na ab xiif moo gën tabax junni jumaa wa luqmatun tasud batna jaa'ihi afdalu min binaa alfi jaami benn tib boo boo xamante ni fatt na ab moo gën tabax junni jumaa waaye mbokk yi mbokk yi euh, jullit yi rawatina taalibe yi fii ci Touba ak feneen sax fudul Touba nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, lii sëñ Touba wax fii li sëñ Touba wax dafa wax ni képp koo xam ne mën nga dara lu mu néew néew néew bu ko denc na nga ko jox jullit yi na nga ko jox su mbokkum taalibe yi su ko defee foofu laa ñëwee nag ci sunu mbooloo muy nga xam ne mu barkeel mii ci Touba ca kanam ay taxawaayam moom de day ak ñaan gu nangu Touba kanam ñaan gu nangu la ci. sa ñaan sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko ñaanoon moo waxoon ni waliyaha bi kulli xarfin min ha jamaatan xaadimatan wasunha yàlla yàlla nga ma defal mbooloo moo xamante ni daf may liggéeyal di liggéeyal julli yi te nga ñoŋal ko mbokk yi ñun li ñuy ndamoo muy Touba Ca Kanam li ñuy ndamoo wala sa muy nuru ndam doote du ndam maanaam transparence bi ñuy wax nga xam ne li ñuy def day leer naññ li ñuy jëlee fi ñu ko jëlee xam waaye tamit fa muy dugg dañ koy xam di meer wu dee nga mën def bilan mën a wax ni nangam moo dugg nanga moo génn lii lañ ci def loola sëñ Tuubaa moo ko ñaanu moo ko ni jamaatan xaadimatan wasunha sëñ tamit mu leer leen ni képp koo xam te ni yaa ngi ci Touba Ca Kanam yaa ngi ci kaaraange sëñ Tuubaa yaa ngi ci kaaraange yàlla moo waxoon ni yàlla nang ma boole sama murid yëpp dafa mel seen kaaraange tey nag mbooloo mi tàqalikoo woon nanga ma dajaleel kon Touba Ca Kanam am mbooloo la moo xam te ne xamante wuñu woon dañoo tàqalikoo woon suñu borom dajale leen maanaam moo tax moo tax moo tax mu ni yaa rabbi ijaalil muridina maan fii xisnika alxasini wa chamlaj maa mbokk yi euh, Touba tey amu ci kenn ko xam ne mën nga yeewoo Touba te Touba Ca Kanam jëriñu la amu ci kenn ko xam ne mën ngaa teg Touba sa tànk sa Touba ci kanam jëriñu la mbokk yi Touba ci kanam day euh, boo doxee ci mbedd mi rek gis li ñuy def mu jëriñ la gis njëriñam benn nga jaar ci mbedd bu mu defar wala nga jaar ci ay lamp yu mu taal wala nga sax nga naan ci am ndoxam moo xam ne moo ko defar loolu fan yi loolu leer nañ fan yi barki démb boo jaay donc ñu ngi dépanne ñetti forage te yaakaar na war nañu dépanne waa yeneen ñaari forage ngir ndox mu ñàkk mi ci biir Touba ak yeneen yeneen yeneen yeneen ñu xam ne nag ci biir Touba ca kanam moom lépp moom Touba ca kanam léppam social la waaye ci biir social boobu dafa amaan social ci boppam. amaat maanaam beneen commission boo xamante ne si la ko tax a jóg mooy way néew doole yi donc moo ko tax a jóg loola nag bokk ak seen ñaar téeméer yi ñuy wax par weer bokk ñu dara ba moom lu waay man la lu waay man la saa su nekk moom ngay gis ñu koy joxe di ko joxe way néew doole yi li nga xamante ne maanaam sëñ Tuubaa moo ko ñaan ci dëkkam bi bëgg dëkkam mel ni wax ni yàlla yàlla na ma defal sama dëkk bii mu mel ni turo ba ci aljanam mu taaru lool Tuubaa loolu lay dox moo tax li ñu bëgg dëgg dëgg dëgg mooy Touba kanam dem ba mel ni turam ci àjjana mu ci ci taar ma xam ne maanaam suuf sax dootu fi am lépp dañ koy goudronné fépp ay lamp ndox mi day baawaan naka sëñ Touba bëgg daal lool te la ñuy dox loolu nag sëñ bi mbooloo mi ñàkk cee bokk wóoru ñàkk cee bokk wóoru kenn ku mën a doon ñi ngi lay woo nga teel a ñëw gaaw ndax lii kat li sëñ mu taxaw wax dafa doy sëkk ca njëlbeen nga dañ woon am naa ci yaakaar ñu dox tuuti mu ne am naa ci yaqiin yaqin jooju nag mu wane ko nan la ko wanee dafa lépp lu Touba ca kanam yëkkati moo xam social lu mën a doon day daal jël ma xaalisam bu am solo def ci moom rek lañ ci xam ci koo xamante ne si maanaam lu mat juróom-ñeent fukki ak juróom ak moom mi ngi leen di daggal rusi sa weer wu dee moom rek lañ xam ci koo xamante ne si bi ñu lu ñu woote social lan cee def mu ëpp lañ yëpp maanaam barki démb yàggul daal ci jamono màggal gi bi ñuy def social daar yi di leen wutal ay basang moom téeméeri basang la participer amul keneen ko defaat moom social am dafa yéeme moom fii mu taxaa maanaam ni mu doxee rek dafa daal xel dëgg dëgg dëgg dëgg tey daa dooy sëkk sëg sëkk képp compagnie yaa ngi si Touba wala boog sëñ Touba nga koy noyyee maanaam nga ñëw ànd ak sëñ sëñ mu taxaa ci Touba ci kanam ci liggéey bi nga xam te maanaam moom la ñuy liggéey ndax it nag mu lool moo dal xel lool mbokk yi suba ci kanam li fi ci ay poste de santé lim fi def ci ay daara defar ci ay daara ci université bi lim fa def maanaam maanaam mënoo koo lim mënoo koo lim li ma wax daal mooy képp ku mën a doon rek soo xasee dugg Tuubaa rek da ngay suba ci kanam dana la jariñ benn nga lekk ci lu mu joxe maanaam nga nga xiiru ci aw ñamam barki démb dong jox na fi junniy daara ak lu topp ay saaku ceeb. loolu ñaata million junni ñaata million yi taalibe wala ñaata million yi taalibe maanaam ay ay jullit ñoo ci xéewlu bokk te yu sew sawaan yooyu kon mbokk yi maa tënk Euh, li may tënk nag di ko jeexale mooy euh, ñi nga xamante ni borom mën loo na leen ba ñu joxe ci yoonu yàlla wi ñen koy dégg di leen joxe loo nañ bàyyi xel li muy bëgg a wax Sëriñ Tuubaa da nee na benn sarax maanaam mën naa yóbbu aljana ñetti nit mu dem ba ci biir mu ni mën na yóbbu aljana ba juróom-ñaar fukki junniy nit ba juróom-ñaar fukki junniy nit mën na ci yóbbu aljana di benn sarax nu mu koy defee mooy maanaam borom kër gi bu dee ci kër gi la wala borom entreprise bi bu yëkkatee ay millions jox ko ñoom wóolu bu ñu ko jaaralee yoon ñoom ñëpp mën nañ caa dugg àjjana ba doonte mat na juróom-ñaar fukki junni ku mu jaar sa loxo rek nga sellal ko sa àjjana taxaw na yow jën nga sa àjjana waaye tamit ku mu jaar sa loxo tamit nga sànq ko li ma wax léegi rek allazina yaknizuuna dahaba wal fiddata summa la yunfiquunaha fa bashirhum bi azabin alim ñi nga xamante ni dañuy denc alal yi néew yi alal ji ñu war ko joxe joxewuñ ko nañu xam ni nañu xam ni ñu ngi ñi maanaam sawara lañuy lekk seen biir alal seen yekk na amay am waali tama zulman ñi lekk alal jirim yi ci tooñ nañu xam ni sawara la ñuy lekk indi ma yekk lu naara naaran ma jeexee ñaari hadis yéen sala sam dafa yonent saa dafa waxoon ni ñi al ashari yéene de muy waa Abdou Moussa al ashari ak mbokkam ñoom seen doxin daf maa neex lool man ci ñoom laa bak bokk ñoom it man lañu bokk ndax ñoom de saa bu ñu amee soxla wala boog ñu war dem ñu war dem xare dañuy woo ñu am ak ñu amul ñëpp kenn ku ne indi la nga am bu ñu ko indee ñoom ñëpp nag ki ci indi woon million ki indi téeméer ki indi junni bu noppee nag ñu séddale ko seen biir kenn doppale kenn ñëpp tooloo loolu de neexi na ma loolu de neex na ma lool mbokk yi mu waxaat feneen ni yàlla am na malaaka moo xam wala boog am na ñaari malaaka yoo xam te fajar gu nekk daan wàcc kaw suuf bu nu day dañuy ñaanal ñi nga xamante ni ñi ngi jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla waaye tamit bu muy malaaka waxee ni yàlla mbooleem ku jox alalam ku joxe alalam na nga ko jox lu mu wuutal na nga ko jox alal ju bëree bëri waaye mbooleem ko xamante ne li mu am da koo téye kooku alal jooju yàlla na yàqu waaw ñaan googu nag ñaan jara bàyyi xel la kon nag mbokk yi ñi ngi daaneel foofu di wax daal ni Touba Ca Kanam ñaan gu nangu la ñaan gu nangu nag kenn ku nekk da war a ngan ngéej bokk ca war nga ngéej dugg ci biir ba nga xam ni yow mi kër sëñ Touba bàyyi na la xel bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah